acca sama gars yi gars yi seen bi seen bu bees la ban ko béyaagul ñi ngi ñaan koy gan ci pass bi nga abonné partage yokk ñu doole gars yi joueur di Sadio Mané ak Iliman Ndiaye ñoom ñaar ku boole woon si attaque wu Sénégal bi di nga gis attaque boo xamante ni attaque bu dis doon ak attaque boo xamante ni dina naqaree te torop parce que Sadio Mané nekk na joueur boo xamante ne nii un contre un dalay romb Iliman Ndiaye nekk na joueur boo xamante ni un contre un da lay romb kon Aliou Cissé mii dafa war a boole Sadio Mané Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr ci attaque bi parce que boobaa di nga gis attaque boo xamante ni attaque bu gaaw lay doon attaque boo xamante ni attaque bu naqareetee lay doon parce que Sadio Mané ku nekk xam na dayoom Sadio Mané nekk na joueur boo xamante ni moo gën a naqaree marqué ci àdduna bi Sadio Mané nekk na joueur boo xamante ni day wàcc jël bal yóbbu ba si camp yi def dara parce que Sadio ñëpp a yi nga xamante def na ko Liverpool te jaloor yi nga xamante ni doon na ko commencé fii nga xamante ni moo di Bayern kon Sadio maane mii boo ko booleeg Iliman Ndiaye ñoom ñaar ci attaque bi day nekk ataa boo xamante nii attaque bu ma neex lay man man man man man sama choix loolu la quoi Iliman Ndiaye Sadio nga am benn neuf point boo xamante ni loo central mu dugal comme Erling Haaland parce que équipe Sénégal ci booy ndaw yi su lu mu bon bon bon moom dinañ fi am ab attaquant boo xamante nii day dugal ku ci mel ni Malay Diagne parce que Malay Diagne joueur boobu noonu joueur bu buñ ko woowoon boole ko booy ponkal yi nii Malay Diagne dina def dara parce que nekk na ab neuf boo xamante ni mën na dugal trop te loo ko central mu dugal kon boo ko booleeg Elimane mii ak Sadio Mané mii barke maam da ngay am attaque boo xamante nii day diis gànn ñëpp koy ragal te coupe de Afrique deux mille vingt quatre baa ngi ñëw mi ngi ñëw nan defar sunu équipe waajal sunu bopp mën a tegale coupe de Afrique bi tegale ko deux fois jël ko deux mille vingt et un jëlaat ko deux mille vingt quatre ñun loolu la ñuy ñaan de ñu tegale coupe de Afrique bi. surtout gi nga jël set sax dañ kaa bëgg a remonter jël ko parce que ñun yor nañ équipe boo xamante ni baax na trop pour man. coupe d'Afrique bi dañ kaa war a mën a lu mu bon bon trois fois parce que suñ équipe nationale bi taxaw na lool ñëpp a mën a fubal ñëpp a mën a fubal ma ne suñ équipe bi yàlla na bu ci kenn cat topp yàlla na bu ñu cat topp parce que Sadio Mané mii xalaat naa ci mondial bi li tax demul cat ci la bokk parce que Sadio Mané avant ñuy dem mondial nekkoon na forme rek doon def ay match chaque chaque lii di def formation yu baax a baax gars yi catu ko ba demul mondial ñu waaye de nag kon nag ñun ñii Sadio Mané ak Iliman Ndiaye ñoom ñaar boo leen boole si attaque bi jël Ismaïla Sarr teg côté bee wala nga dóor ko ban bu boobaa di nga am attaque bu baax gars yi loolu Aliou war a def ngeen Issaoui parce que yàlla sunu match yi nga xamante ne mi ngi si kanam mu nekk ay match qualification yoo xamante ni war naa ñëw ci weeru mars beeg avril bi yooyu noonu Aliou Cissé dafa war a usin loolu quoi parce que Iliman Ndiaye nekkul joueur boo xamante nii day ñëw ci équipe nationale Sénégal ñu koy teg ba Iliman Ndiaye talent bi nekk si moom warul di toog ba Iliman Ndiaye nekk na joueur boo xamante nii ci mondial bi ñu bëri moom lañ soxawoon pour Aliou Cissé di ko football loo parce que Iliman buñ téye bal bi day pass wala mu def dara parce que nekk na joueur boo xamante nii dafa man li muy def gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partager